الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñoo ngi dellu si di sant borom bi subhaanahu wa ta'ala di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na jàmm yàlla ak i xéewalam ak barkeem yàgg nga wàcc ci kawam di dellusi ci jotaay yi ñu amoon ci téere bu mag bi di ñetti cosaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na koo xam te cheikhul islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala bindu ko ci jotaay bi paase ba léegi lu aju ci cosaan bu njëkk bi te tey incha allahu ta'ala lañ koy jeexal ci tudd lenn lu aju ci cosaan bu njëkk bi ci ay niral di jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo waxoon ni ci jotaay yi paase dafa war jaam bi sellal ko weetal ko defal ko yàlla subhanahu wa ta'ala kese bañ ko see bokkaaleek dara ndax cosaan bu njëkk bi nga xam ne dees na ko ko laaj te mooy kan sa boroom tontu ba la muy ëmb mooy xam gi jaam bi di xam kiy boroomam waaye xam-xam boobee jural ko mu jox ko liy ak xam te mooy jaamu ko moom kese bañ ko bokkaale dara waaye ba nga xamee ne saa su ne bu ñu boyalee wax jaamu yàlla ak wéetal yàlla si jaamu gañ koy jaamu ñu bare bare bari si nit ñi eh, ràññeewuñu lan mooy bokkaale ak mbir yi nga xam ne mooy jaamu yàlla ñooy yan te ñu war koo defal yàlla subhanahu wa kese moo waral borom téere bi indi si ay niral indi si ay exemple yoo xam ne lenn la rek du yëpp waaye pour ràññee ne yii ay jaamu yàlla yu màgg la yoo xam ne jullit bi daf ko war a wéetal yàlla subhaanahu wa taala defal ko ko moom kese bañ ko see bokkaale kenn wala lenn ba si lañ waxoon ni moom boroom téere bi fa mu waxee ne wa minhu adduaau walxawfu walrajaau waltawakkul maanaam ba muy lim mbir yi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yi benn bu si nekk mu indi si ay tegtal ci téere borom bi subhanahu wa ta'ala wala ci waxi yenente bi sallallahu ci jaamu yàlla yu mag yooyee gannaaw bam ko généraliser ci ne lépp dafay dugg ci al ak al ak lii di al ci bindu tey bi dina dinañu ñëw ci yenn ci jaamu yàlla yooyee commencé ko ci addu'a ak tegtal yam sa indi fa mu waxee ne wa fi lxadith adduaau muxu lcibaada wa dalilu qawluhu taala wa qaala rabbukum udcuuni astajib lakum in alladina yastakbiruuna an cibaadati sayadxuluuna jahannama daaxirin wa dalilu lxawfi qawluhu taala innama dalikum alsheytaanu yuxawifu awliyaa'ah فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين wa dalilu alragbati walrahbati walxushuuc qawluhu tacaala innahum kaanuu yusaaricuuna fi lxayraat wa yadcuunana ragaban wa rahaba wa kaanuu lana xaashiciin wa dalilu alxashyati qawluhu tacaala falaa taxshawhum wa dalilu alinaabati qawluhu tacaala wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah wa dalilu listi'aanati iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin wa fil hadiis idaa ista'anta fasta'in billah wa dalilu listi'aadati qawluhu ta'aalaa qul a'uudu birabbil falaq wa qawluhu ta'aalaa qul a'uudu birabbin naas wa dalilu listighaasati qawluhu ta'aalaa إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا kon lii mooy bindu tey bi xaw naa gudd ci am njàng waaye yépp rekk ay façon la ci ay jaamu yàlla yoo xam ne borom téere bi daf koy indi ngir niral ngir wane ne yii ay jaamu yàlla la ak seeni tegtal ci téere borom bi subhanahu wa ak waxi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wane sellal giñ ko war a sellal defal ko yàlla subhanahu wa kese di dugg ci cosaan bu njëkk bi comme niñ ko waxee woon léegi ci ne nit ki bu xamee boroomam subhaanahu wa taala xam àq bi mu am ci moom te mooy jaamu ko moom kese bañ koo bokkaaleeg dara yàlla na mu xam jaamu yàlla yooyee mooy yan waaye yàlla na mu xam ay tegtalamit kadalika ci téere borom bi subhaanahu wa taala ak naka la koy defalee yàlla subhaanahu wa taala kese moo tax mu ne wa fi lxadiisi adduaau muxul ibaada lii di ñaan euh, dafa ñëw si xadiis ne mooy yuuru yaamu yàlla dont ne xadiis boobe si càllala ga di chaîne de transmission bi am na ay wax yu si am si waxi boroom xam-xam yi taxu ko wér beneen xadiis ba ko gën a wér mooy addu'a huwa al ibada addu'a huwa dinañ si ñëw si kanam borom téere bi indi si aaya ba wane ne lii di ak ñaan yàlla subhanahu moom moo ko moom defal moom kese bañ ko see bokkaalek dara mu wax si aaya ba wa qaala rabbukum moom wax ne leen ma ma may leen kon wax ji mu wax ne ñaan leen ma dafay tekk ni ndigal la te ndigal yàlla subhanahu wa bu digalee jaam yi ngir ñu def dara loole jaamu yàlla lay tudd def ko jaamu yàlla lay tudd kadalika borom bi subhanahu wa bu diglee ngir ñu def dara loole daf koo gërëm si ñun daf koo bëgg te waxoon nañ si e, définition jaamu yàlla si bind bi weesu na ko cheikh al islam ni taymiya rahimahullahu taala waxee lépp lu yàlla turla wu dajale lépp lu yàlla subhanahu bëgg mbaa mu gërëm ko ci jëf yi feeñ yi ak yi nëbb dafay daldi dugg ci jaamu yàlla yàlla bu diglee dara loolee daf koo bëgg kon ba mu waxee ne ñaan leen ma yàlla daf ñoo digal ngir ñu koy ñaan waaye bokk na ci yërmandeem moom borom bi subhanahu wa mu ñuy nangul ñaan mu digal ñu ñu koy ñaan mu ñuy nangul ñaan moo tax mu ne astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen moom yàlla subhanahu wa taala yërmandeem ak euh, ngëneelam gu yaatu mu naan la ñaan ma ma may la yow jaam bi loolee wuuteeg doomu aadama ak mboolem mbindeef yi nga xam ne boo jubloo ci ñoom di leen laaj mbaa di leen ñaan ñu jéppi la comme na ko waykat ba waxee الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب moom borom bi subhanahu wa taala moom boo ko bàyyee di ñaan ci la lay mere boo ko ñaanul ci la lay mere comme ni mu waxee ci li jeexantal aaya bi inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxiriin ñi nga xam ne ñooy rëy rëylu ci jaamu ko moom yàlla subhanahu wa taala te bokk ci jaamu yi gën a màgg comme ni muy ñëwee ci kanam ñaan ko ñooñee day dinañ dugg sawaras jahannama ak toroxtaange ànd ak toroxtaange waykat bi ne yàlla subhanahu wa taala daf lay mere bu fekkee doo koy ñaan waaye doomu aadama bi moom boo koy ñaan mu lay mere boo koy ñaan mën ngaa ñëw si moom tey ñaan ko du la wax dara waaye bis boo ko baamtoo di ko baamtoowaat daf ko yoon tool mu dal di lay jéppi mbaamu mere la loole mbindeef la mais borom bi subhanahu wa looy gën a baril di ko ñaan looy gën a jublu si moom si ak toroxlu muy gën a euh, euh, kontaan si yow ak di bég si li nga xam ne loole muy jaamu yàlla joojee ngay def kon lii di ñaan dafa bokk si jaamu yàlla yi gën a màgg comme ni ko borom téere bi waxee fii si addu'a u muxul ibada te ñu junjoon la xadis la boo xam ne borom xam-xam yi wax nañ si ak ñàkk wéram xadis ba ko gën a wér mooy adduaa huwa al ibada adduaa huwa al ibada di xadisi an-Nu'man ibn Bashir rahimahu radiyallahu taala anhu xadis bu wér la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan sa dëgg-dëgg mooy jaamu yàlla boo déggee jaamu yàlla sa dëgg-dëgg mooy ñaan ñaan mooy jaamu yàlla kon dafay wane ne ñaan jaamu yàlla mooy jaamu yàlla ji gën a màgg comme la yenent bi waxoon ci alxajju arafa bu ñuy wax aj arafa bu ñuy wax aj arafa tax ndax ponk gu màgg gi mu nekk si ci arafa mooy li nga xam ne nit ki bu ko bàyyee ajam moom yàqu na mënta aj aj gu euh, amul euh, taxawaayu arafa bu ko taxawaayu arafa rawee xanaa beneen at mais aj googu moom yàqu na kadalika lii jaamu yàlla moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne adduaa huwa al ibada ñaan sa dëgg-dëgg mooy jaamu yàlla kon euh, borom téere bi euh, dafay lim fii lenn si ay tegtal yuy wane ne lii ay jaamu yàlla la dañ ko war a defal yàlla subhanahu wa kese bañ koo bokkaale ak dara bu ñu waxee ñaan kon jaam bi dafa war a xam ne lii di ñaan jaamu yàlla ju màgg la yàlla rek lañ ko war a defal di ñaan loo xam ne ka nga ka koy ñaan la koy ñaan mënula koo defal yàlla rek moo lu mën a defal loole loole bokkaale la comme niñ ko waxoon si jotaay bii paase lan mooy ñaan ñaanu jaamu yàlla ak ñaan gu dagan ñaan gu dagan mooy nga dem di ñaan mbindeef loo xam ne mën na ko am na ko mën na la koo jox mën na ko am na ko mën na la koo jox loole kenn du wax ne bokkaale la boo ñëwee ci man di ma ñaan téere bi mbaa nga may ñaan eh, sama alal jii te ma mën la koo jox boo ma ko ñaanee ma jox la ko wala ma mën la koo jox loole kenn du wax ne bokkaale la mais ñaan gi ñuy wax ne kenn waru koo defal kudut yàlla subhanahu wa taala mooy di ñaan loo xam ne kenn mënu la koo defal kudut yàlla subhanahu wa taala comme ki taxaw si ab bàmmeel di ko ñaan wërsëg ngir kookee defal ko wërsëg mbaa euh, may ko doom mbaa euh, may ko soxna ab bàmmeel kooke nga xam ne dee na ba ñu suul ko mbaa si ab xërëm mbaa lu mënti doon mbaa di ko ñaan jinne ngir mu wërsëgal la lii di doom walla wërsëg walla lu mënti doon nga xam ne yàlla rek subhanahu wa taala moo la mën a defal loolee loole moom bokkaale bu mag la buy génnee nit ki si diine wal iyaadu billah beneen ba mu wa dalilul xawfi mu tuxu dem si beneen si jaamu yàlla yu mag yi muy lii di ak ragal lay tegtalam si alquran mu ne mooy fa yàlla wa taala di wax ni innama dalikum alcheytaanu yuxawifu awliyaa fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin ñooñee day seytaane di seytaane moo leen di ragalloo moo leen di ragalloo di ko jaare ci ay péetéem walla muy ragalloo ay péetéem ñu féete ñoom ñooñee lay tiital di leen ragal mais yéen ñi gëm yàlla ku gëm yàlla waroo ko ragal yàlla ne fala taxaafuuhum bu leen leen ragal wa xaafuuni in kuntum mu'miniin moom yàlla subhanahu wa taala moom ngeen war a ragal ndéem gëm ngeen kon dafay tekki ne lii di ak ragal defal ko yàlla subhanahu wa taala kese loole ak ngëm la jullit bi gëm yàlla rek lay ragal du ragal keneen ku dut yàlla subhanahu wa taala waaye dafay tekki ki nga xam ne dafay ragal ku dut yàlla subhanahu wa taala si loo xam ne lor munu ko saa yeggi kookee eh, bokkaale la dafay wan ne ngëm amu fa moo tax mu ne in kuntum mu'minin ndéem ñu gëm yàlla ngeen eh, la ñu wax si ak ragal la ñuy wax si si li nga xam ne mooy ñaan si séddale ko ñaar comme ni ko eh, Cheikh Saleh ibni Fawzan xafidahu llahu taala waxee mu ne lii di alxawf nawaan ragal ragal ñaari façon la dafa am lu ñuy tuddee alxawfu tabii ragal goo xam ne c'est naturel loole kenn du wax ne bokkaale la mu joxe si niral lu mel ni nit ki ragal euh, jaan mbaa nga ragal lii lor la te lor goo xam ne mën na yegg si yow maanaam ragal gaynde mbaa nga ragal sab noon mu dal sa kaw loolee c'est naturel yàlla subhanahu taala noonee la bindee doomu aadama bi dafa am ay mbir yoo xam ne daf koy ragal loole kenn waxu ko waaye nag ñaareel façon bi mooy li ñuy tuddee xaw fu sir di ragal loo xam ne mbaa ngay rayal koo xam ne si loo xam ne kenn mënu la saa lor ku dut nga xam ne mooy ragali bokkaalekat yi kon kiy ragal maanaam diw ne diw day eh, dama ragal mu teg ma nangam maanaam mu teg ma feebar mbaa mu rey ma ñenn ñi dem nañ sax ba naan diw day boo joteek moom doo fanaan waa diw boo joteeg moom doo yendu si koo xam ne dañoo yaakaar si moom ne maanaam eh, dafay defee nangam wala dafay defee nangam loolu loolu la ñuy tuddee xaw fa sir loolu bokkaale bu mag la mbokki jullit yi yegg si ba naan diw boo joteeg moom wala bu la meree doo fi yendu wala doo fi fanaan maanaam dafay fàtte bakkan ci loo xam ne si secret la wala daf lay teg feebar dangay ngay jékki ñu ne diw moo ko moo ko def nangam wala diw loole xaw fu sirr la loole bokkaale gu mag la si loo xam ne yàlla rek moom moo la ko mën a def yow nga am pas-pas boobee si diw wala si xërëm bi wala si xàmb bi ne tuur yi boo ko defalul xàmb bi wala jinne ji boo ko reyalul nangam ak nangam mën na laa def nangam ak nangam ak nangam. si yow wala sa ya si saw yaram wala sa njaboot wala nangam ak nangam loole mooy ragal gi nga xam ne bokkaale la comme ni ko yàlla subhanahu wa waxee si aaya bi mbiri cheytaane la innama dalikum cheytaan yuxawwifu awliyaa moo leen di tiital mooy tiital ña féeteeg moom ñi nga xam ne ñoom ñoo nangoo euh, nangu cheytaan di leen def loo loolu ñooy ay péeteem mu leen di tiital walla mu leen di tiital yéen di ko jaare ci ay péeteem ñooñeen di ñooñu seytaane ci jinneeg ci nit ñi ñu leen di tiital yàlla ne bu leen leen ragal falaa taxaafuuhum bu leen leen ragal wa xaafuuni ragal leen ma man yàlla bu ngay ne ragal ragal leen yàlla in kuntum mu'minin ndéem ñu gëm yàlla ngeen nit ki bu fekkee dafa gëm yàlla du ragal ñooñee du ragalub jinne du ragalub xam xàmb mbaa ab xërëm mbaa kuñ naan sëriñ la dafay lore boo xuloog moom daf lay def nangam ak nangam ak nangam wala bu la meree doo fi yend wala doo fi fanaan loole lépp ay caaxaan la nit ki nga xam ne ngëm yàlla dëggu na si xolam loole du ko yëngal waaye ka muy ragal mooy borom bi subhanahu wa taala jaamu yàlla ju màgg ji di jaamu yàllay ragal dafay wéetal borom bi subxanahu wa moom rekk la ragal dafay am conviction am xel mu dal ne lii di ak lor mënta yegg si moom lu dul ci kaw ndigalu yàlla subxanahu wa ak kàttanam moom yàlla moom moo ko ko mën a teg amul keneen kuy mbindeef ko ko ko mën a teg lii nag moom mooy ñaareelu façon bi. kon eh, mbokki jullit yi ngeen takkale ñaar yooyu li ñuy tuddee xawfu tabi'i ak li nga xam ne moom mooy eh, xawfu sir di eh, li nga xam ne moom mooy bokkaale ragal yi nga xam ne c'est naturel si doomu aadama la nekk comme ragal gi muy ragal jaan mbaa nga ragal gaynde mbaa nga ragal sab noon dal sa kaw wala yu mel noonee loole kenn waxu ko waaye li nga xam ne mooy xawfu sir di ragal loo xam ne lu lu secret la lor ga mënul la yegg ci yow lu dul yàlla moo ko mën a yeggale ci yow mbaa mu teg la feebar mbaa mu def la nàngam mbaa mu def la nàngam loolee moom bokkaale la danga war a gëm ne yàlla rek lañ ko war a defal yàlla rek lañ ko war a ragal subhanahu wa taala euh, Cheikh Saleh bin Fawzan joxe woon na ci exemple ci li nga xam ne mooy xawfu tabii euh, la xewoon diggante Muusa alayhi salaatu salaam ba mu reyee waaja si waa ñooñu firawna ya ñaar ña doon xeex mu ñëw ki bokkoon si mbokkam yi euh, sàkku wallu si moom Moussa ñëw di ko wallu far keneen ka dee bi mu deewee Moussa daal di continuer di dem am ko ko dab ne ah, firawna ngi lay wër maanaam ñi ngi lay wër te buñ la jàppee nangam ak nangam nangam yàlla subhanahu wa taala wax ci alquran ne fa xaraja minha xaaifan yataraqab Moussa daal di génn dëkk ba bi muy génn mi ngi ànd ak tiitaange di ragal ñu dab ko ragal googee see naturel ndax Moussa dafa rey waa ji te na bu ko jàppee dina ko def nangam ak nangam ak nangam kon ragal googu c'est naturel nit ki tiit googu muy yëg ci xolam ngir ragal dara loolu waxuñu ko waaye di ragal loo xam ne lor ga te yegg si yow yàlla rek moo la mën a lor si loolu comme exemple euh, misaal yi ñu jox woon sànq loolee moo tax ñuy wax si ak tënk mbokki jullit yi muy continuer di wax ne wa dalilu raja mu toxu si beneen jaamu yàlla ju am solo ndax ñaar yëpp la jullit bi war a dajale li alxawf euh, ak ar raja mu ne tegtal bi wane ne lii di yaakaar kadalika yaakaar ne yàlla rek lañ ko war a defal di yaakaar loo xam ne yàlla rek moo la sa mën dimbali moo la sa mën a wallu moo la sa mën a defal la ngay yaakaar kooke yàlla rek lañ koy defal duñ ko defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala ne la say tegtal mooy la yàlla wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbi fal yaamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada képp ki nga xam ne nii yaakaar na ne dina dajek borom bi subhanahu wa taala loolee yaakaar la kookee la ko war yàlla nee na kon na jëf jëf ju sell jëf ju baax te bu mu bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala keneen ci yaakaar googee ak si leneen lu dul yaakaar lépp luy jaamu yàlla bu mu si bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala keneen mbokki jullit yi aaya boobu dafay tegtale ne kon lii di yaakaar jaamu yàlla la yàlla rek la jullit bi war a yaakaar rawatina si loo xam ne yàlla rek moo la mën a defal la ngay yaakaar comme kiy yaakaar ak wërsëg comme kiy yaakaar am doom comme kiy yaakaar am soxna ak mbir yi nga xam ne yàlla rek moo la ko mën a defal lu aju ci mbiri àllaaxira kom ki yaakaar yàlla yërëm ko foofee yàlla dugal ko aljana yàlla rek moo la ko mën a yàlla rek ya kii yaakaar tawfiq yàlla jubal ko kii yaakaar barke yàlla jox ko ak barke su dundam loole yàlla rek moo la ko moom si yàlla rek ngay aj sa yaakaar googee moo tax si ngay déggee ne njuumte wu rëy wu ñenn ñi di wax eh, yenn saay nga dégg ku naan diw yi diw day yaakaar àdduna ak àllaaxira wala diw mi nu yaakaar àdduna ak àllaaxira waliyaasu billaah la loolee bokkaale la diw mi nu yaakaar àdduna ak àllaaxira àllaaxira boobee ngay wax diw mënalu mënalu fa dara fii si àdduna sax lim la mënal bariwul fii si àdduna lim la mënal bariwul bu fekkee danga koy yaakaar fii si àdduna si lim la lim la mënal loolee waxuñu ko waxoon nañ ko sànq comme kiy yaakaar diw si ab bor ah, sama bor bii day eh, gannaaw yàlla subhanahu wa taala diw laa si yaakaar mu dimbali ma ma fay ko fekkee diw moom loolee ngay faye sa bor bi eh, mën na la ko jox ci jox la loolee waxuñu ko donte ne sax comme li boroom xam-xam wax la gën mooy nga aj sa yaakaar si borom bi subhanahu wa taala doog see teg li ñuy tuddee gannaaw loolee nag diw mën na ma see dimbale gannaaw yàlla subhanahu wa taala waaye mbokki jullit yi nga ne diw nga fa yaakaar mbokki jullit yi loolee lu garaaw la lu garaaw la kon loolee bokkaale la jullit bi war na koo sori moytu waaye ñu gis ne fii si aaya bi yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee si yaakaar daf saa teg li nga xam ne mooy jëf-jëf ju baax comme ni ko Cheikh Saleh xafidahullahu taala di waxee mu ne nit ki du aju si yaakaar bañ a jëf déedéet yaakaar dafay tegu si jëf naam yaa ngi yaakaar yàlla subhanahu wa taala yàlla dane fal yaamal amalan saaliha na nga si boole ak jëf jëf jëf ju sell jëf ju jëf ju baax jëf ju sell kon jëf ju sell moom mooy jëf ju dajale ñaari mbir mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala waaye tegu si kaw ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa ak nam ko defee ñaar yooyu bu ko dajalee loolu la ñuy tuddee ñaari charte yi nga xam ne mooy charte yi jëf bu fekkee jëf ji dajale na ñaari mbir yooyee dañu naan jëf ji jëf ju sell la kon loolu moom moo aju ci jaamu yàlla ju mag ji de ak yaakaar ñu ñoon sànq ne jullit bi dafay dajale ñaari ragal gi muy ragal borom bi subhanahu wa taala ak ragal mbugalam waaye ragal gi muy ragal eh, yaakaar gi muy yaakaar yàlla subhanahu wa di yaakaar ak payam ak teraangam ëllëg muy aljana jullit bi dafay dajale ñaar yépp du demee ragal gu ëpp du demee it yaakaar gu ëpp comme niñ ko waxee léegi bañ a jëf déedéet dafay dajale li ñu tuddee alxawf war raja ndax ñaari laaf yooyee comme ni ko al imaam ibn al qayyim rahimahullahu taala waxee moom lay naawee benn bu ci damm rek si yoonu yàlla doo dem waaye si yoonu yàlla yaa ngi say demee ñaari laaf di laafu ragal ak laafu yaakaar ñaari jaamu yàlla yu mag lañ jullit bi war koo defal yàlla subhanahu wa kese borom téere ba teg ci lii di jaamu yàlla yu màgg yi mu ne wa dalilu tawakkul qawluhu taala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum muminin lay tegtal ci ne lii di wakkirlu jaamu yàlla ju màgg la te yàlla rek lañ ko war a defal bañ ko see bokkaaleeg dara mooy la yàlla subhanahu taala wax ne wa ala allahi ci yàlla rek jiital gi mu jiital li ñuy tuddee aljaar walmajruur li yufiidu alxasr walqasr al ixtisaas comme nañ koy wax ci iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain dina ñëw maanaam jiital gi nga jiital ci làmmiñu arab jaar ak majruur foofee dafay firi ne ci yàlla rekk lañ koy def duñ ko defal keneen lii du wakkirlu te mooy e, weer say mbir ak di weeru ci yàlla subhanahu ak di laqatu ci gannaawam ci ngir e, yootu dara mbaa mu baareel la aw lor loolu la ñu tuddee wakkirlu di weeru gi jaam bi di weeru ci yàlla subhanahu wa si ci xolam eh, ngir yàlla subhanahu wa ta'ala ñoddel ko ak njëriñ mbaa fegal ko ak lor loole yàlla rek lañ koy defal nit ki du wekkiru nit ki du wàkkirlu ci keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala mbaa muy wéeru ci lenn di yaakaar lenn di wéeru si moom eh, comme niñ ko waxee rawatina si mbir yi nga xam ne kenn mënula la saa dimbali mbaa mu fegal la sa ak lor kulur yàlla subhanahu wa taala bis boo ko tuxalee di wéeru si keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala yaa ngi si bokkaale moo tax xel ne wa ala ci yàlla rek fa tawakkalu na ngeen wakkirlu in kuntum muminin ndéem ñu gëm yàlla ngeen comme nam ko waxee woon sànq si aaya bële hmm, si alxawf di ragal noonu la ko waxee fii dafay wane ne wàkkirlu ci yàlla ku gëm yàlla moom moo koy def waaye kiy wàkkirlu ci kudut yàlla dafay wane ne gëmut yàlla subhanahu wa taala ndéem ngëm a nga fa fekk yéen ngi gëm yàlla subhanahu wa taala kon na ngeen ci moom te bu leen wàkkirlu ci keneen kudul moom gannaaw loolee mu teg ci yeneen ñetti jaamu yàlla yu mag di lii di al raghba ak al mu ne lay tegtal ne ñett yi jaamu yàlla la yàlla rek lañ ko war a defal mooy la yàlla subhaanahu wa taala wax ne innahum kaanuu yusaaricuuna fi alxayraat wa yadcuunana ragaban wa rahaba wa kaanuu lana xaashiciin yàlla subhaanahu wa taala ba mu limee ay yenenteem di ñi gën mbindeefi yàlla yi subhaanahu wa taala yàlla da leen a tagg ne leen ñoom day dañ daan rawante ci lu baax ci ay jëf yu baax dañ ci daan rawante waaye wa yad'uunana dañu daan ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala ragaban wa rahaba teg ko ci kaw xemem ragbatu mooy xemem xemem am yaakaar di bëgg ak li nga xam ne mooy warahaba ak di tiit di ragal dañuy boole ñaari waaye wa kaanu lana xaashiin dañ daan toroxlul yàlla subhanahu wa di suufeel seen bopp di toroxlu du dellu si moom jiital gi mu jiital fii kadalika kaanu lana xaashiin lañ waxoon fee rek la ñuy wax fii dafay wan ne yàlla rek lañ ko daan defal duñ ko defal kenn moom lañ daan wéetal ci di toroxlu di dellu si moom di eh, xemem di tiit di dellu ci yàlla subhanahu wa yàlla taggee ko ay yeneenteem tagg gi ko yàlla subhaanahu wa taala taggee yenente yu baax yooyee dafay wane ne lii lu yàlla bëgg la kon dafay wane ne jaamu yàlla la waaye bu wéree ne jaamu yàlla kon dafay war ne yàlla rek lañ koy defal kon eh, lii di ak xemem jëm ci yàlla subhaanahu wa ak tiit ak mbu mbugalam loolee yàlla rek lañ koy defal waaye lii de ak toroxlu suufeel sunu bopp toroxlu yàlla rek lañ koy defal yàlla rek lañuy toroxlul di suufeel sunu bopp ci kanamam moom yàlla subhanahu wa taala duñ ko defal keneen ku dul moom mu jëge fa teg ci lii nga xam ne moom mooy alxasya kadalika di ak façon ci ak ragal waaye di ragal gu ànd ak xam-xam comme ni ko borom xam di waxee ne euh, alxasya ne xawfun xaas la ndax wax nañ fële ak ragal ne tiit waaye fii alxasya yàlla subhanahu wax ni fala taxshawhum bu leen leen tiit bu leen leen ragal waaye nangeen ngeen ragal yàlla subhanahu taala eh, yàlla subhanahu wa taala waxoon na si alquran innama yaxsha allaha min ibadihi ñi nga xam ne ñooy ragal yàlla te dëgg-dëgg mooy ñi ko xam kon xasya dafay ànd ak li nga xam ne moom mooy xam-xam yàlla ne fala taxshawhum waxshawni wa li utimma nicmati wa laallakum tahtadun sa baqara sa beneen aaya bi mu ne fala taxshawhum waxshawni in kuntum muminin euh, kadalika si euh, gazwatu Uhud ba nga xamee ne xeex ba jeex na ba ñu yaakaar ne waa Makka ñibbi nañ Abu Sufyan dal di yónneewaat ci jullit ñi ne ñoo ngi ñëwaat alladina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil ba leen nit ña waxee ne ñoo ngi ñëwaat dal seen kaw hmm? ne na ngeen tiit na ngeen ragal loole daf leen a dolli woon gëm yàlla subhanahu wa ta'ala mooy dañuy wax ci ki nga xam ne dafa gëm yàlla subhanahu wa noonu yàlla yi ak péetey seytaane bu ñëwee di ko xoqatal ak di ko tiital loole daf koy dolli ngëm yàlla subhanahu wa ta'ala waaye lan lañu wax xasbuna allahu wa ni'mal wakiil yàlla doy nañu sëkk doy na ci wakirlu moom lañu wéeru ci moom lañu wakirlu kon gannaaw loole amul lu ñuy tiit amul lu ñuy ragal bale yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen digaloon nañ leen dabi nañ leen dabi bi ñu demee ba fi ñu tuddee xamraul asad ñu gis ne loole eh, kii la woon rek waaye eh, amuñu woon yéene ñëwaat dal seen kaw dañ leen doon jéem a tiital waaye ñu fekk fa ñu dëgër si wàll seen wàllu ngëm Uhud la muy metti metti li guerre ba doon metti metti metti ak lañ fa rey Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaañ diñ ko gaañ ak lépp mu ne leen jóg leen ñu dem dabi leen waaye ndekete yoo eh, dañ doon wax rek kon jullit noonee lay mel ci ngëm yàlla subhanahu wa taala yàlla ne fala taxshawhum bu leen leen tiit bu leen leen ragal waaye na ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala mu teg seen li nga xam ne mooy al inaaba dañuy tënk mbokk jullit yi ngir comme nañ ko waxee woon léegi ay misaal la rek ay niral la ci jaamu yàlla yi benn bu si nekk ak tegtalam ne yàlla rek lañ ko war a defal mu ne wa dalilu al inaabati qawluhu taala wa anibu ila rabbikum wa mooy di tuub di dellu ci yàlla subhanahu wa tuub gu ànd ak dellu dellu si wàllu xol nit ki di dellu ci yàlla subhanahu wa taala si xolam waaye di tuub loole mooy al inaaba yàlla nag ne wa anibu ila rabbikum na ngeen tuub di dellu ci moom moom yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom mooy seen boroom a cheikh saalih dafay wax ne al inaabatu axassu min hmm, moo gën a nekk spécial si li nga xam mooy tuub nit ki mën naa tuub te du am ak al inaaba maanaam tuub bàyyi dellu waaye inaaba sa sa xol ci boppam ngay delloo ci yàlla subhanahu wa tuub ba gën a dëggu si tuub yi dellu ci yàlla subhanahu wa taala sa xol loole la ñuy tudde al inaaba yàlla nag digle nañ nañ ko ko defal digle gi mu digle nañ ko ko defal dafay tekki ne jaamu yàlla kon dafay tekki ne war ñu koo defal keneen ku moom Euh, ku dul yàlla subhanahu wa taala kon mbokki jullit yi loolee si la ñuy déggee njuumteg ñenn ñiy wax maanaam dem si nit ki naan ko maa ngi lay tuubal hmm? naan diw noo ngi tuub noo ngi tuub ak a jéggalu ah, ñoo ngi lay tuubal ak te loolee nekk lu kii seen xol ya maanaam di dellu di toroxlu si kanamam mbokki jullit yi loolee njuumte la lii di al inaaba yàlla rek lañ koy defal duñ ko defal keneen comme ni ko alallaamatu aljaamiyu raximahu llahu taala waxe mu ne laysa hunaka axadun yunaabu ilayhi wa yutaab ilayhi illa allahu subhaana amul kenn ku ñuy tuubaka dellu ci yow ku dul yàlla subhaanahu wa taala boo tooñee nit nag mën nga koo jéggalu boo tooñee nit mën nga koo jéggalu am maa nag nga ñëw si sab sëriñ mbaa ñëw si koo màggal si sa xol bi naan ko maa ngi tuuba ko jéggalu eh, maa ngi tuuba ko dellu loolu di at tawbat wal kenn du ko defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala mbokki mu ne yàlla subhanahu wa taala wax ne ba muy nettali si Shuayb si surat Hud alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib si waxu Shuayb ba mu ne yàlla subhanahu wa taala moom day si moom rek lay wakkirlu wa ilayhi unib waaye si moom rekkit lay dellu jiital gi mu jiital jaarak ak majruur dafay firi fii li nga xam mooy alxasr ne moom rekk lañuy ñuy dellu di tuub moom yàlla subhanahu wa taala duñu tuub di dellu si mbindeef duñu tuubal kenn ka dellu si moom ku dul yàlla subhanahu wa taala loolee it wax si al mu ne wa dalilul istiaanati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li nga xam ne mooy tegtalu ne lii di sàkku ndimbal du ñu sàkku kenn ndimbal si loo xam ne yàlla rekk moo ñu si mën a dimbali ku dul yàlla subhanahu wa bis boo ko sàkkoo si keneen rek dugg nga si bokkaale yow jullit te yow yaay wax saa su ne si sa biir jullit naan yow yàlla yow rekk lañuy sàkku ndimbal iyyaka na'budu yow rekk lañuy jaamu wa iyyaka nasta'in waaye si yow rekk lañuy sàkku dimbal kon loole dafay tekki ne yàlla rek lañ koy defal duñ ko defal keneen mu ne ñëw na si xadiis yonent bi sallallahu alayhi wax ni ida staanta fastain billah booy sàkku ndimbal nanga ko sàkku ci yàlla subhanahu wa taala yow jullit mu teg sa li nga xam ne mal di sàkku muslu di muslu jullit bi ci yàlla rekk la war a muslu warul muslu si keneen ku dul yàlla mu musal ko ci lépp luy mbon mbon mbaa luy ay mbaa ko mën a lor mu ne la say tegtal la yàlla subhaanahu wa wax ne qul audu bi rabbil falaq mu ne waxal yow yenente bi sallallahu wa sallam ki may muslu ki nga xam ne ci moom laay muslu ci moom mu musal ma mooy borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy rabbil falaq mooy as subh di boroom suba gi suba gi xar googu muy xar leer gi di dugg loolee mooy al comme na mu ko waxee faaliqul ci suratul an'am xar googu suba gi di xar leer gi di dugg lool mooy al falaq boroom suba gi di yàlla subhanahu wa mi nga xam ne mooy boroom guddeeg bëccëg suba gi dugg googu muy dugg yàlla mi nga xam ne mooy boroomam miy def loole si moom yàlla ci lay làqatu di sàkk sàkku si moom li nga xam ne mooy muslaay mu musal ma si lépp luy mbon mbon kon lii daal istiaada mooy alluju comme ni ko euh, cheikh saleh alfawzan xafidahu llahu taala waxee mun al istiaada talabu liltija ila man yamnacuka min maxdur taxaafuhu min ajli an yadfac anka hada alshay hada hiya alistiaada hadihi hiya alistiaada mu ne istiaada mooy sàkku ak làqatu di làqu hmm, ak muslu yàlla subhaanahu wa taala mu musal si loo xam ne ak lar la gu mën a yegg si yow ngay sàkku si yàlla subhaanahu wa taala mu musal la si lor mu ñëwee si surat ak surat annaas moo tax mu ne wa qawluhu qul audu bi rabbi nnaas neel maa ngi muslu ci nga xam ne mooy boroomi nit ñi musal ma ci lépp luy mbon mbon hmm? mu musal ma ci lépp luy mbon mbon moo tax ñaari saar yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko al muawwidatayn hmm? mu wax ci xadiis mu ne ma muta mutaawidun bi mithlihima am kenn kuy muslu di sàkku ak muslaay gu raw ñaari saar yi jaaree ko ci ñaari saar yi mooy muslaay yi gën ci muslaay kon si yàlla subhanahu wa taala la ñuy muslu la ñuy sàkku ak muslaay musal ñu si lépp luy mbon mbon comme ni mu ñëwee si ñaari saar yooyee min sharril waswasil xannaas ak euh, euh, qul a'uudu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin idhaa min sharri naffaasaat si mbon mbonu njibarkat yeeg mbon mbonu guddeeg bëccëg ak mbon nit ñeeg lépp luy mbon mbon euh, nit ki jaam bi di muslu si yàlla subhanahu wa taala ko si ci loolee si ak tënk mu ne wa dalilu li nga xam ne mooy tegtalu sàkkuk wallu al mooy di wallu sàkkuk wallu woote sakuur ngir yàlla musal la génne la si xat-xat hmm? loolee mooy al istigaatha mu ne borom bi taala dafa waxoon id tastagiithuuna rabbakum fastajaaba lakum ba ngeen di sàkkuk wallu si seen borom subhaanahu taala yàlla daal di leen wallu dal di leen euh, nangul seen ñaan googee wallu leen kon lii daal istigaatha si yàlla rek lañ koy defal jullit bi sàkku wallu si keneen si loo xam ne yàlla rek moo ko fa mën a wallu nga toll si xat toll si jamono joo xam ne yaa ngi si xat yaa ngi si musiba yaa ngi si balaa yàlla rek moom la sa mën a génne bul ko sàkku si keneen ku moom yenn saa nga gis aw nit toll si danger toll si xat-xat moo xam accident la wala euh, xat-xat bu mu mënti doon nga gis muy woo keneen ku dul yàlla waliyaasu billah naan diw waliyaasu billah mbokk ci lii loolee bokkaale gu mag la loolee bokkaale yàlla la subhaanahu wa nit ñi léegi dañuy dem ba bu ñuy dee sax dañuy bokkaale waliyaasu billah ñu toll si jamonoy xat-xat jamonoy musiba oto bi di waaj a këpp wala avion bi di trembler di waaj a daanu wala bato bi di suux nga dégg ñuy woo keneen ku dul yàlla subhanahu wa naan diw naan diw cey diw cey diw cey diw waliyaadu billah loole mbokk jullit yi bokkaale yu mag la ndax foofee yàlla rek moo la fa mën a xettali même yéefaru màkka yi demoon nañ sax ba bu ñu tollee foofu yàlla rek lañuy woo fa ida rakibu fi l daawu llah muxlisuna lahu ddin buñ daan bokkaale kay mooy lammaa najjaahum ilal barr bu ñu bu ñu xettalikoo ba ñëwaat si jéeri ji ba tegaat seen tànk si kaw suuf si la ñuy bokkaale yàlla si la ñuy bokkaale yàlla subhaanahu wa mais si jamonoy xat-xat kay ñoom dañuy am yaqin ne yàlla rek leen fa mën a waaye suñu jamonoy tey comme ni ko Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala di waxee si yeneen i téeréem ne suñuy bokkaale kati jamono ñoo gën a tarle bokkaale ña jiitu woon ndax ña jiitu woon su bu ñu nekkee si bànneex lañu daan bokkaale mais bu ñu demee si xat-xat yàlla rek la ñuy woo mais ñun léegi da ngay gis koo xam ne dafay nekk si bànneex di sant ku dul yàlla subhanahu wa taala bu demee ba nekk si xat di woo keneen ku dul yàlla subhanahu waliyaadu billah waliyaadu billah léegi nag loole la ñuy tuddal yàlla rek lañ ko war a defal nit ki warta woo sa secours ku dul yàlla subhanahu si loo xam ne yàlla rek moo la fa mën a xettali li ñu waxoon fale it la ñuy waxaat fii ci ne woote secours ak sàkku wallu ci loo xam ne nit mën na la faa wallu bu boobaa dara néew ci kenn du ko tuddee bokkaale waaye ci charte lan mooy charte ya ka ngay woo nekk ku teew nekk ku teew nekk kuy dund nekk ku la mën a wallu ñetti charte yooyu noonu alxaadar alxay alqaadir ñett yi bu fekkee daje na ka ngay woo maanaam nit ki waaj a lab par exemple ci géej gi gis ko ko mën a wàllu moo xam sapeur pompier la wala nga woote e, ñu la mën a wallu ñoo xam ne ñuy dund lañ ñu teew lañ ñu am kàttan lañ ngir génn la foofe loole du du bokkaale loole moom axda bil asbaab la du bokkaale waaye istixaasa gi nga xam ne mooy bokkaale mooy nga nekk si xat-xat foo xam ne yàlla rek moo la fa mën a dimbali mën laa xettali si xat-xat gii nga nekk ngay woo koo xam ne awalan dundul maanaam koo xam ne sax dee na ngay gis koo xam ne ñañuy woo dee nañ bu yàgg wala koo xam ne naa mu ngi dund même fa mu nekk sax yëgu la yow yaa ngi dee moom ma ngay euh, euh, def yeneen ak yeneen te yëgu la sax yëgul sax yaa ngi yaa ngi yaa ngi dund wala koo xam ne mi ngi dund naam hmm? euh, mais mënul laa xettali fa nga nekk loolee lépp boo ko defee yaa ngi dugg si bokkaale kon daal charte yi mooy charte yi nga xam ne nit ki ki nga xam ne dafay sàkk wallu mën naa sàkk wallu si bu fekkee charte yi daje na mais bu fekkee jéggi na charte yooyee rek dafay dugg si nga xam ne mooy Euh, bokkaal yi sàkku wàllu si ku dul yàlla subhanahu taala moo xam ab bàmmeel la wala jinne la wala kummanti doon yàlla rek moo la fa mën a wallu yàlla rek moo la fa mën a xettali nga koy sàkku si keneen ku dul yàlla subhanahu taala aliyasu billah mu teg sa li nga xam ne mooy jaamu yàlla rey di ak dab wa dalilu dabxi qawluhu taala qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin neel yow yenente bi sallallahu alayhi wa mbooleem samay julli ak samay rey maanaam yi li ngay rey yàlla rek moom mooy tax nga koy rey yàlla rek ngay reyal doo reyal ab xërëm doo reyal ab jinne doo reyal leneen lu yàlla def ay sacrifice yoo xam ne jinne bi moo la koy sant mbaa sëriñ bi moo naan da ngay rey nangam ak nangam ak nangam ngir am nangam ak nangam ngir ma defal la nangam loole yépp ay bokkaale la mbokki jullit yi kii reyal xamb bi xamb yi walla kii reyal kii def sacrifice ngir géej gi wala dex bi ngir dex bi mën a def nangam ak nangam ngir eh, ay jéye ju ñu am naa rey nangam ak nangam ak nangam at mi buy dugg nawet bi nañu rey nangam ak ay nag ak i xar ak i bëy yoo xam ne saltige yi ñoo leen koy dicté yooye yëpp mbokki jullit ay bokkaale la lii di rey jaamu yàlla ju màgg la yàlla subhanahu wa taala wax ni fii mais samay julli ak samay rey sama dund ak sama dee lépp yàlla laa ko moom moom mi nga xam ne mooy borom yi monde yépp moom yàlla subhanahu wa ta'ala nit ñi tey ngay dégg koo xam ne day jël mbiram yépp teg ko ci nit naan ko sama dund ak sama dee lépp yow yaa ko moom yow diw liyaadu billah loolee la mbokk jullit yi sori li nga xam ne mooy diine yàlla ji nga xam ne moom la yàlla wàcce woon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seytaane fexe na nit ñi ba ñu tuxal ko lépp loo xam ne jaamu yàlla lañu koy defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala te lii di ay bokkaale yu mag euh, bam sa beneen ba mooy an nadr li nga xam ne mooy nidir di nidir bam sa mujjalee moom borom téere bi si misaal yi mu indi si jaamu yàlla ne yàlla rek lañ ko war a defal mooy di nidir ne dina ko defal nangam nidir mooy ki nga xam ne par exemple dafa am ab malade ne sama malade bi day bu wéree dinaa wooral yàlla ñetti fan wala exemple bi may def dey bu ma ko yàlla mayee dinaa saraxi nangam ak nangam ak nangam loole la ñuy tuddee nidir loole yàlla rek lañ ko war a defal mu ne la see tegtal ne yàlla subhanahu wa taala dafa waxoon ni yuufuuna bin nadri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira muy lim jaamam yu baax bokk na si seeni melokaan ne bu ñu tegee seen kaw dara ne dañ koy def dañ koy defal yàlla loolee dañ koy matal nañ ko def donte ne lii de nether lii cosaanam mooy dañ koo sib jullit bi du du teg boppam dara naan da koy def di si nether lii lii cosaan mooy dañ koo sib dañ koo sib comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxee laa te bi xeer waaye nit ki bu ko xasee ba gàlloo teg ko si kawam nit ki bu ko xësee ba teg ci kawam faaw da koy def faaw da koy def man nadara an yuti allah fal yuti képp ki nga xam ne dafa nidir ngir topp yàlla subhanahu wa taala def benn jaamu yàlla na ko def ba mu des nag loo xam ne mooy yàlla la moom kenn du si nidir mooy yàlla kenn kenn du nidir ne dinaa def nanga fekk loolee mooy yàlla la nidir kon yàlla rek lañ koy defal bul nidiral ab xàmbu ne dinaa ko defal nangam wala ngay nidiral jinne naa man day sama malaat bi bu wéree hmm, dinaa sacrifier nangam ak nangam defal ko jinne ji jinne ji sant la ko wala sëriñ bi wala mel noonee bokk jullit yi loole jullit du ko def loole bokkaale la jullit de dafa war a ràññee lii jaamu yàlla ak lii tuxal jaamu joojee dafa keneen ku dul yàlla subhanahu wa ndax danger bu rëy rëy rëy la foofee la mbir mi nekk lii yëpp ay misaal la yoo xam ne borom téere bi fii lay jeexalee cosaan bu njëkk bi ngir leeral eh, war gi nga xam ne ni war na ko jullit bi góor-góorlu jaam bi xam àq bu mag bii nga xam ne moo tax yàlla subhanahu wa taala bind ko te mooy jaamu ko moom kese bañ koo bokkaale dara mu xër lépp lu muy def ci ay jaamu yàlla na ko sellal defal ko yàlla subhanahu wa taala kese bañ ko see bokkaale kenn walla lenn bis bu defee loolee kookee day mi ngi si xéewal mi ngi si ak njub kookee day mooy ki nga xam ne bis bu demee ba dugg bàmmeel ñu koy laaj ana kan moo doon sa boroom ana kan mooy sa boroom dina tontu tontu bu jub kookee la yàlla subhaanahu wa wax ne dina ko saxal comme nam ko saxalee woon fii si àdduna noonu lay saxalee làmmiñam si tontu tontu lu jub waaye mbokk jullit yi nañu wot nañu moytu fii si àdduna ñu bañ a xam kan mooy yàlla subhanahu wa taala bañ a xam lan mooy àq bi nga xam ne nii moom la am si ñun waaye ñu bañ a xar suñu tànk tubéy ci xeex ba àq boobee ñu defal ko ko moom kese eh, loolee day mooy li tax yàlla subhanahu wa taala binduñu allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa wa sahbihi ajmain